dañ fee ñëw maa ngi ko doon wax sànq ñëwuk taalibe waaye ñëw fii itam ci turu premier ministre di Mohamed Boun Abdallah Dionne di taalibe itam am fi cëru taalibe ñëw fi ci taalibe waaye yàlla def muy premier ministre gouvernement senegal ñuy wax ci turam itam ànd ak délégation boo xam ne bii dañ leen di lim sëñ Assane bay ci délégation bi la bokk di conseiller spécialu premier ministre waaye it doon ku ñu ràññee ci yoonu murit bi doonub taalibe fekk fi sunu baay di sunu maire di sunu jawriñ ñu ànd moom it mu bokk ci délégation bi di Baye Sayid Fall di maireu Ndiéna lagan premier ministre ku ne xam na ne nag département Gossas daf caa am cër te la gan doon dëkk boo xam ne bii day ci nee dëkk bu ne am na la koy taaral waaye lay taaral département Gossas Ndiéné ci la bokk dañ koy sagoo yàlla dogal ñu am ku dey na Cheikh Issa Diène muy suñu sëñ Touba andi ko fa wax ci moom li mu wax du ñu fi nekk biri ak di yokk ndaxte ñun ñii dëgg-dëgg li ngeen wax lépp dafa mel ne ñun ngeen ko waxal ndax ñun nag ñun ñi nga xam ne ñooy doomi Gosaas képp lépp lu ñu fi wax ci wone Cheikh Issa rek dafa mel ne ñun ngeen ko waxal ndax ñun lañu ñun ñoo koy ndamoo ñun ñi nga xam ne ñoo fa dëkk ñoo fa cosaanoo kon turu premier ministre ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaan ngeen ñaanal ñu li ñuy jublu mbebet ko ci réew mi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk fas yéene koo liggéey ngeen ñaanal ñu suñu borom bi oyofal ñu ko ñu man cee am ndam ndax réew mi ah réewu sëñ Touba la réewu tarixa yëpp la waaye ñun dafa am foo xam ne fii ñu fa ràññee xàmmeeñu fa te nee naa lépp lu ne di liggéey lépp lu nu am ndombo tànk bu nu am a ah, dañoo jàpp ne rek sëñ bee ko def ci ñun ndax sëñ bee defar mag ñu baax ñu ñu fi waxtaanee bi ñu fi toogee ba léegi te ñooñu di suñu royukaay ñu nit ñu doon ay taalib ci kër gi. kon dañoo jàpp ne lu ñu man rek peccum liir bu man bu baaxee dañ ne waajur yaa jàpp ci mbagg yi kon sëñ bee ñu defar li ñuy jot a am sëñ bi lañ koy gërëmee li ñuy jéem buñ ci amee ndam sëñ bi lañ koy gërëmee.